yaa ngi sa bopp waaye dafa baax di wax rek doo dégg loolu loolu bu ñu ko boole woon bu ñu ko boole woon ñu bëre jël ay nag ma xalaa am man gileem laa jël gileem lu kenn musul jël laa si jël laa jël yow loolu boo ko waxee da xumbal rek gileem la laa jël yow loolu boo ko waxee da ngay xumbal yow sa kanam bi musoo mbabat barki maam dara sa kanam bi woo oh, xam ne musoo mbabat gileem damay damay dem Adrien Senghor di dem terrain gaal gi barki seen am kii mu kii mu musul musul takk ngemb dam adressé nga wala terrain gaal gi barki Seydina Mohamed man dama fay dem di bëre. booy kii nii kii de karaami dara dama koo xam bu baax a baax a baax. te mu ngi doog am combat. xamoo ma de boo juddoo ba tey yaa ngi doog am combat. waaw. xamoo ma naa la bu baax a baax a baax. yow mi yaa ma xamul da nga moo gën a nooy feneen moo tax nga dugg fii. fii a nooy boo toftalee sama yaali laa lay jaarale. billaay wallaay boo toolee sama ñaari tànk laa leer laa la wax. waaw baax na